bi président de la République les mesures yi dañuy reprendre cours yi après deux mois de suspension surtout parents yi ak élèves yi amoon nañ jeexi jaaxal ñu xamal leen ne mën na nekk bi ñu demee ba nangu ne mën naa nekk ñu commencé naan nan la ñuy conditions sanitaires Tay li fi am tay ci préfecture bi conseil départemental ak limu mu joxe UNICEF ak limu mu joxe ak yenn maire li ñu joxe ci fan yi ñu génn ma tambalé ko ci ministre collectivité territoriale loolu dal na suñu xel ba fi mu ne nii suñu xel non seulement dal na mais daf ñuy yombalal sensibilisation bi ñu def ci côté parents yi ak élèves yi ba nga xam ne dinañ mën bàyyi seen doom tëddee nelaw ba xale yi mën a dem jàng ci jàmm del si ci jàmm fii ba examen ñu def ay examen ba pare ñun ñaan yàlla ñu am ay résultats yu baax. waaw ci xayma fanweeri junni ak juróom ci ay ndongo ñoom la concerné damaa jël ndongo yi nekk classe CM2 def entrée en sixième ak CFEE